lu tax bu gisee ñuy bëgg nit di baril salaatu ala nabi moo di yonent bi mën ko di yóbbaale ci yu bare ndax am na ci lu nga xam ni jàng kese kese taxul nit di ko maîtriser di def salaatu ala nabi rek salaatu ala nabi rek mooy li góor gi nettali woon fii ci champ de course góor ga dafa togg ak ndongo yi di leen firi la alquran ñëw ba ci aaya bi sunu borom di wax naan kulla yawmin huwa fi sha'n maanaam sunu boroom bés bu nekk ak programme ba koy préoccupé naka la yegg si foofu moom sëriñ bi ndongo li daal koy dog mu siggi xool ko mu ne ko kulle yawmin huwa fi shaan aaye bi laa bëgg nga firil ma ko fekk sëriñ bi étudier wul aaya bi ba mu jeex mu xawa mel ni ku gàntal mel ni dafa xaw mere ndongo li ndax laaj gi mu ko laaj lu mu xamul waaye ndongo li itam ci wàllu discipline mu ni patt bàyyi ko mu yeggale ba ca ëllëg sa ñu amaat cours ndongo li jékki-jékki xool ko ni ko kulla yawmin huwa fi sha'na dellu si ca aaya ba sëriñ bi daldi siggi ni ko sha'nun yubdihi wala yabtadihi maanaa yàlla amul dara lu muy tàmbaliwaat waaw li mu war a def yépp dajale na ko ba noppi day xaar waxtu wu nekk rekk la mu laaj mu wàcce loolu jox ko nit ñi bi mu ko waxee ndongali ndongali ree ne ko salli ala man allamaka ni ko defal salaatu ci ki la jàngal ndekete ndongole xam na ni yonent bi la laaj ci guddi gi pour mu sarax ko firil ko kulla yawmin huwa fi shaan yonent bi wax ko ko moo tax biñ ko ko laajaatee mu muuñ ni ko shaanun yubdihi wala yabtadi sëriñ bi ni ko kon nag ñun ñëpp nañu sukk def salaatu ala nabi ñu dikk ñu sukk def salaatu ala nabi ndax yonent bi moo leen gàgganti waaw pour wax la am na lu nga xam ni dajale téere yi taxul mu sotti waaw baat bi ngeen di wax connexion du ko jóg rekk nga connecté wu ci moom waaw ndax am na ci connexion yu nga xam ni wifi bi muy branché nekkul fii Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu dafay firi al Quraan fekk am na kuy ñëw di fekke ci firi bi waaye ndeke li muy fekke ci firi bi yépp li muy xaar mooy Maodo gàgg pour mu gàgganti ko bi Maodo di firi ba ñëw ci benn aaya wax aaya bi kooku soog a jóg nag ni ko li nga wax du noonu wax ko Seydil Hadj Malick mais Maodo merul te kat taalibeem yépp a ngi toog bi ko kooku ne li nga wax du noonu Maodo ni ko xanaa tafsirul Jalalayn ni nga yor mu ni ko waaw mun ko boroom dafa juum waaw mu jaaxle nag ndax ndekete yëf yi nekkul ci njàng mi yàlla ubbi léegi mooy tax nga xam li nga war a xam lan la waaw waaye ku nekk ak sa chance Serigne Cheikh def ñu koy nettali ndax dama xam ni domaine bi ñu war a dugg buñ ca duggee dëgg ñépp ni gàmmu gi neexul ah ndax fi nga dugg ñun xamuñu ca dara fekk c'est une façon de parler mënuma gëj ci daaw ba dellusi ren di leen wax ay kasaaba kasa waaw dama leen di mën a wax rekk laboratoire ba ma nekkoon waaw waaw laboratoire ba liggéey naa fa lu nga xam ni tey amatuma jot nit naan ma dama am problème sàngam ma ko kaay ma bindal la xaatim sàngam dañ koy dépassé waaw boo demee bouteille yaa nga fa bouteille bu ci nekk ak la ko tax a jóg ñu numéroté ko waaw ku xam feebar ku xelam feebar ku xolam feebar ku yaramam feebar ku ñu laal ci wàllu sexar ku ñu laal ci leneen ak leneen ak leneen la nga foog ni xëy na xëy na yàlla def na ca ndigalam bu jotee nga waslu ca àq rekk waaye du tax nga dog waaw ndax yëfu jaamur la waaw moo tax nag dama wax mbokk mi ku nekk ak la nga tollool waaye xam nga ni kii toog ñu ni ko basin mi liif laam adam dellu miim del bàyyee kook loolu rekk ndax loolu la tollool am na keneen ku tollook leneen te mooy jëmmi basin mi mara waaw kenn xamul lu ñu doon xoolal yonent bi ci li ngeen jàng ci seen taysiir salli ala saajidin qabla alwara fa ala bi sabi miati aamin rabbi allahu yonent bi am na juróom ñaari téeméeri at mais ban at at yi du sunu at yi di sujootal sunu borom moo tax ma ne jullit yi nañu am fayda bu léegi yàlla bëgg leen a lakk rek ñu ne ko waaw li yonent bi doon sujjóot kon ñu teg ko fan waxin la waaw pour wax la degré sujjóot ba boo déchiffré baatu sujjóot bi 313 la lay jox keroog bi yonent bi war a dajeek waa Makka ci gazwatu badrin sujud boobu moo jël la responsabilité pour renfort bi yonent bi soxla mu indil ko ko te mooy waaw koo xam ni sa benn sujud mën a contribuer à ce point indi trois cent treize soldats fekk armée yu nga xam ne lu ne lañu am ñu ñëw écraser leen ci benn sujjóot mu tax jullit yi bari na lu ñuy tawat fekk li ñuy def moo matul mu dellu ci li ma leen wax ci al amaana al kulliya ak al amaana al juz'iya waaw yi ñoo nekkul benn waaw ku ci nekk ak sa yenn na mu toll waaw moo tax nag toujours al quraan yi ko nit di jëriñoo dafa bare ndax boo gisee na Cheikh di tudd markazul fuhumi wal maani ci biir jawharatul kamal fuhum yooyule ak maani yooyule kenn xamul nu mu toll parce que bu ci nekk ak li mu la mën a diriger nga dem ci wa nuuril akwaani al mutakawina al aadami saaxibi al xaq rabbaani البرق الأسطع بمزون الأرباح المالية لكل متعرض من البحور والأواني xoolal loolu boo koy jàng boxoor yooyu ñu tudd ci biir jawhara te li muy bare bare bare bare ñun benn lañ ñu ci saraxagum ñu di ko tudde xisbul baxar nga xool ne xisbul baxar li alquran boole yëpp yëpp yëpp ñu war ko jariñoo tënk nañ ko ci xisbul baxar waaw bismillahi baabuna tabaraka xiitaanuna ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا كنك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم واو واو xam nga ku jàng loola ba noppi am lu la déranger ti dangay war a seetaat sa bopp moo tax mën naa comprendre sax li xew sànq ba tey ñu naan micro yi dafa am problème parce que wax nañ ma nii ma appareil bi yoroon micro yi moom la courant bi lakk et du du hasard du hasard fan yii yëpp ñu ngi essayer pour lakk sunu appareil yi te xam naa na mu demee waaye comme yàllaa ngi def sutura ñu ngi waxtaan mais ñu sant yàlla du dëgg ba tax na gis nga xisbul baxri boobu mim yi ko composé yëpp ay serrure la mais cellule bu ci ne ak code bi koy war a ubbi ci xisbul baxra man bi ma ci yoree sunu maam aadama moo ma ko moo tax ki ñu ko yónni pour mu indi ko jox ma ko daf ma ko jox ba noppi quarante rek ma wuy ji boroomu waaw moo tax am na ñoo xam ne da leen di yërëm ndax heureusement bi nga xamee ni li ñu yàlla di dénk sañu ñu mer rek di ko jëfandikoo ndax lu ci nekk foog nga demander autorisation pour soog koo jëfandikoo mais ko xamul xamul xam nga sëriñ Cheikh daf ñuy nettali bés boobu sëriñ Babacar a ngi feebar tëdd di bëgg wuy ji boroomam góor gi alaaji Amadou Dem bi jur Sophie Dem muy sunu wéyjur ñëw seet si sëriñ Babacar ñëw tase fa ak sëriñ Bachiru Mbakke tase fa ak sëriñ Jaamal góor gi ni leen ñu xaar tuuti ndax dafa mel ni sëriñ Babacar dafa forbët ndax docteur bi daf ko defal ay garab bu fekkee yëngu na ma dem seetal leen ko suñu cheikh nee na ñu toog nag di waxtaane ci kawaakib yi ak nujuum yi planet yi ci kaw asamaan bi ak galaxie yi fi nekk bu ci nekk ci ban nga jóge ak ban puissance nga àndal nee na fi ñu ciy discuter am benn mbokk bu toog moom li ñuy wax xamu ca dara mu jékki-jékki rek dagg waxtaan wi waaw ni suñu Cheikh am na ku ngeen fàtte de ci discussion bu toll noonu suñu cheikh ni ko ku ñu fàtte mu ni ko Duudu Bakasaar suñu cheikh ni ko Duudu Bakasaar fàtte wuñ ko daf ñoo jege ba mu ëpp waaw waaw mais c'est une façon de parler ndeysaan ndax xam ne li ñuy wax ak kii li muy tudd soo diamétralement opposés moo tax ku nekk ak sa niveau waaw waaye bi mu ñu nettalee loolu moom góor gi ci la soog a comprendre lu tax sunu maam bi jur su fi dem taalif téere boobu mu tudde Biyaa'u Nuurayn ci wàllu tafsirul quran moo tax bés ma ñëw góor gi ni ma ndax am nga sa téere mam boobu ma ni ko am naa ko kay mu ni ma dooma ko abal ma xam ni moom soxlawu ko man la bëgg a bàyyiloo xel pour ma jàng téere bi waaw ndax ku sa maam taalif lu toll noonu war nga bala ngay xam leneen nga xam loolu ba noppi waaw loolu mooy tax nag toujours seen yooyule comme noonu ñu ko waxee ca xisbul bahra ak seen yooyu mu àndal sitru large masbuulun alayna wa aynullahi nadiratun ilayna bi xawlillahi la yuqdaru alayna wallahu min waraihim muxiit bal huwa quranu majidun fi lawxin maxfuud léeg dangay dem ba mujj gi dangay ngay sax yow sa xel wérul benn bis nag moo koy jàng ñëw ba foofu ma ni yàlla ndax bu may jàng lii ndax bu ma ci dugalee kiraamun kaatibuun yaalamuuna ma tafaaluun ndax dinga ma ko nangul <laughs> te mooy sama digganteeg yow sax yoonam bañ ci nekk lu ma tontu nag kooku c'est notre affaire waaw waaye pour wax la dafa bari yu nga xam ni borom téere yi ñoo koy compliquer mais yàlla yi mën a dox sunu digganteek moom yu bare la waaw ndax boo déggee façon bi muy waxee ci yonent bi waaw baatu alkanzul a'zam waaw dafa yéeme كنت كنزا مختفيا trésor xëy na la ko ñenn ñu di firi mais coffre rekk lay firi coffre bi nga xam ni yàlla bijou yi mu gën a cher la foofu la koy denc xam nga soxna yu jigéen yi toog kenn ku ci nekk fa mu jaar ba jënd li mu jënd nii takku ko ku defa ni daf koy teg n'importe où booba xamul lu xew waaw ah. sunu boroom itam dafa am bijou yu nga xam ni yii bijou wàllu roox la am biiju yu nga xam ni wàllu axlaaq la ak biiju yu nga xam ni wallu axlaaq la wallu jikko la yonent bi moom mooy coffre bi moo tax ñu tudd ko alkanzul azam boo demee coffre bi ñetti étagère la yi ñu denc ca kaw yi ñu denc ci digg bi ak yi ñu denc ci suuf waaw yooyu nag presque trésor yooyu moom la ñu boole mu dénkaat ko Seydina Cheikh Ahmed Tidiane loolu tax ngay gis ni ñoom balaa seen àpp di mat sax ñu ñaan yàlla mu yóbbu leen parce que li ñuy dund ak li ñu xam daf dootul xaj fii feneen la xaj te seen lépp lañuy ñuy superviser fan yi passé nit a ngi ma seetsi si ni ma dama gént gis góor gi man a sëriñ Cheikh mu ni ma waxal Moustapha ñi ko façon façon biñ ma denc neexuma façon biñ ma denc neexuma fi ñu ma denc it neexuma nee ko na ma dencaat xam nga kooku c'est autre chose fokk nga xam noo koy déggee waaw ndax dafa am ñoo xam ni boo waxee loolu provocation lañ koy jàppe pour wax la kuy superviser bay superviser ba melam fekk njëkkoon na yónnee ñu ni ma góor gi neena na vitre vitre yi ñu def ci bàmmeelam nañ ko dindi ndax daf koy tàngal nga xam ni kon kooku mu ngi dund ci biir bàmmeel bi parce que bu ca dundul woon du mën a wax loolu waaw bu ko defee kon nag yonent bi bi mu paree ci état bu asamaan ba yàlla def mu juddu ba am ñeent fukki at yàlla commencé moom risaala bi ñu commencé di ko wax waxyu ci la xamee ni ndekete texte bii ñu koy jàngal ak texte yañ ko doon wan ci kaw y a une différence waaw moo tax bële nubuwam moo ko yenu mais bii ko Jibril di indil nag risalaam moo ko yenu ndax nit ñee tax mais fi yàlla commencé moom muy iqra bismi rabbik lu tax yàlla commencé moom ci iqra bismi rabbik lu jare déglu la mooy sunu borom dafa wax muhammad sallallahu alayhi wa ni ko fexeel ba li dal aadama bañ la dal mu ni ko lu dal aadama mu ni ko dama ko tànq xam-xam dama ko tànq xam-xam te jàngaluma ko c'est très important dama tàmm tànk aadama xam-xam te jàngaluma ko moo tax la ma ko tànk dafa toog tuuti loola réer ko te comme mission bi ma ko doon doyee ñaar rekk la gis ci côtéem mooy jabaram muy Hawa ak Iblis buy nurook collègue te du nekk collègue c'est un adversaire mais adversité ci yonent bi maanaam ci Adam def ko koy nëbb ndax li mu bëgg mooy tëral plan bu tax ñu destituer Adam léegi nag pour mu man ko def parce que xam nga bi ñuy voteel aadam malaaka yi di ko voteel Iblis vote sanction la def illa Iblis a mais taxul aadama xam lu xew yàlla am lu ko metti ndax ñetti yëf yi daje bu njëkk bi mooy jabar ji moo ko waroon dimbale accompagner ko mais jabar ji amul lu muy xalaat lu dul lune de te jigéen bu dul xalaat lu dul lune de am na cadre boo xam ni ku ko fa xaarit du sotti ibliis comme plan bu mu destituer aadam lay wut booba ba tey mu essayé seet num leen naxe ñoom ñaar ndax Hawa ndax Adam li mu naxe Hawa mooy comme lune de rekk moo ko intéressé mu tudd ko sajaratul xuld pour moom lune de bi du jeex bu dee aadam aristocratie boobu mu am yàlla defal ko ko mu di ko dund ak soxnaam moom it bu sañoon du jeex te comme xam na loolu ci aadam foog mu naxe ko wa mulkin laa yabla est mën nga ma déglu ma tegtal la benn façon nguur goo xam ni boo ko xasee ba am jeex na nguur gi dootul jeex te yàlla xam ni ñaar yi benn du ci dimbale aadama bu ñetteel bi mooy conflit d'intérêt yi nar a am parce que malaaka yi njëkk a bi yàlla proposé pour def aadama xalifaam te ñoom ñu ni ko ñoo fi jiitu aadama doon la defal lu la aadama defalul kon boo ko jëlee teg ko ci sunu kanam tey du ñu weddi sa ndigal waaye ñoo fi nekkoon donc conflit boobu mu a jur moo tax yàlla mujj décider pour wàcc aadama waaye bi mu koy wàccee ci mbaaxam ak ci expérience u yàllaam mu xam ni bu fa jabar ji nekkee du sotti moo tax mu réeral jabar ji xawa ba noppi wut ñu dox digganteem ak malaaka yi Ah, ak iblis Adam est resté seul gisul kenn yàlla xam ni bu sonnee dana sàkk pexe ci boppam te sàkk pexe boobu mooy mu dabaatal li mu perdre yitte boobu aadam war a defaat nag te fekk ñu jox ko xam-xam bu mu jàngul moo ko ko teg moo tax yàlla avertir yonent bi pour ni ko yow nag duma la tànq xam-xam dama lay jàngal sa ko fala tansa dinaa la jàngal waaye defal jom ba fàtte bi aadama fàtte yow mu bañ la dal ndax laqad ahidna ila aadama min qabl fa nasiya walam bi commencé ci wàllu njàng ba ñu fa jógee ñu dem ci cadre yàlla yóbbu ko ci cadre tasbix sabbix isma rabbik al aala waaw ndax boobu màkk gi mu yaroo am na yeneeni yàlla yu ñu gëm te di ko jàmm te moom xam na ni yàlla yooyu du ko jariñ yàlla teel ko wan boppam ni ko jëlal sa lépp rek jébbal ma gis nga yàlla yu bare yii yépp mën na la bañ féete fenn jàppal ci benn bi nga am rekk a arbaabu mutafarriquun xayr am illahu alwaxidu alqahaar bi mu jógeeg moom ci tasbiix mu dugg ak moom ci tawxiid te moo di ñu bañ a bokkaale yàlla ak leneen ndax religion yi ko jiitu muy judaïsme ak christianisme ku ne xam na la fa xew ndax bañuñu ba wutal yàlla doom di wax au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit yàlla nag wax ko jàngale ko ci lam yalit walam yuulaat am na koo xam ne jurul kenn te kenn juru ko waaye gis nga mu am benn point bu doy waar bu nga xam ni yonent bi mënu ko woon gis lu dul yàlla indi ko ci alquran expliqué ko léegi néegi bi ñuy tudd jàng xalilul xusari di jàng suuratu yuusuf xëy na jotul yegg ca aaya ba sax ñu kuppe ko mais yàlla dafa wan na muhammad benn baat bu sew te wan ko ko ci yonent yàlla yuusuf wala ko gis nga yuusuf bi mu nekkee ci prison bi te prisonniers yi doon ko laaj seen gént ga te mu firil leen gént ga yàkkamti génn dafa tax mu mu wax kenn ci prisonniers yi ci jot a sauvé ne ko udkur ni inda te bu fekkee ni ki muy waxal moom gëm na ni rab la am feneen moom yuusuf du jaadu ci moom mu tudd baatu rabb lu dul ci boroomam looloo tax bi mu ko ni udkur ni inda rabbik fa ansaahu sheytaan dikra rabbihi fa labita fi sijni bidaa sinin waaw tudd na inda rabbika rek fàtte moom bosam yàlla fàtteloo ki mu doon waxal pour mu tudd buur gaaw yuusuf bi ak kémtaan yi ci moom yàlla fàtteloo ko ko ba toogaat na ay at ca prison ba kenn génnewu ko ndax juum bi mu juum rek ni ko udkur ni ànda rabbik waaw yàlla nag di ko wax yonent bi ni ko bu mu yàgg mukk ba ñu juum loola ci baat bu mel noonu ba ci des mooy fata adduban alquran jàngal gi mu doon jàngal yonent bi ci benn genre discipline lay war a séqeek boroom xam nga yonent bi bi mu demee ci rañaan gi romb na yonent yi ko doon teeru ci asamaan yi boo demee Seydil Hajj Malik wax na ko ci xilaasu dahab bi aadamin marra isa yusufin wa xanuuxin xanuux mooy idris wa xanuuxin thumma haaruna muusa wal abi rahimi donc juróom-ñaari yonent yi ñoom ñoo jalonné ci juróom-ñaari asamaan yi pour di teeru yonent bi bi mu paree visitam ba noppi ba yàlla jox ko julli yi dafay dem di romb yoon yàlla Muusa yonent yàlla Moussa ni ko yàlla def la jox julli yi mu ni ko waaw mu ni ko ñaata julli la par jour yonent bi ni ko ni ko juróom fukk mu ni ko loolu bare na demal ci sa borom ne ko mu wàññil la ko yonent bi dellusi ci sunu borom ni ko Moussa def ma wax ni ma ñaan la nga wàññi ko yàlla am lum mu ca wàññi jox ko la ca des mu dellu siwaat ba tolloowaat ak Moussa Moussa ni ko ñaata la ci wàññi mu wax ko ko mu di ko ah doyul ba tey demal mu wàññiwaat ko di ko def noonu di ko def noonu muy dem di dellusi ba yàlla di wàññi ba mu des juróomi julli bi mu ñëwee ba tolloowaat ak Muusa Moussa ni ko bare na ba tey demal ñaan ko mu wàññiwaat ko foofu rekk la amee lu ko naqari ci rañaan gi ndax def loo nañ ko indiscipline bu tax nag yàlla wax ko boppam bi mu ñëwee bay wàññilu wat juróom yi rekk yàlla wax ko benn baat mooy bët bu rusul toj waaw baat boobu nag naqari ko ndax def na visitam teraanga yi ko yàlla defal kenn xamul nu mu toll donc question boobu rekk tax yàlla di waxeek moom noonu ni ko bat bët burusul toj maa yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bi zallamin lil abid mu am lu ko naqari waaye li ko ci yàlla doon jàngale mooy li ko Muusaa di jiitu ci yëf yi yëpp di nekk magam du moom moo ko war a wax li war a dox digganteem ak boroomam xam ko foofu bu dee ñun wolof dafa bari lum ñuy juumloo moo di defe nañ ni ku la jiitu ci yëf yi rekk moo la war a wax li nga war a def te nit dina la jiitu ci yëf yi te nga xam ca lu mu xamul lu mat di teey la mu tax léeg-léeg nga jël une décision nit ñi xamul ku ne di soow waaye lu tax mu def ndàngam lu tax ñëpp ñëpp bàyyi moom euh, bàyyiwul parce que ñi ñuy jox ndigal newuñu fii waaw ñi ñuy jox ndigal ñu nga ca bàmmeel ya même sur le plan politique ba la ñuy jël position foog ñu orienté ñu wax na def leen nangam lu ca nar a amit dinañ la ko wan pour nga xam nekk nga cay doxale moo tax sunu mbokk Barthélémy Diaz ñu ngi koy sant lu ne indi na ko ci gàmmu gi yàlla xam na ko waaw indi na fi nag yu bare indi benn enveloppe de cinq millions waaw li tax ma xam ni dana sonn ndax ñi muy séqal duñ ko may jàmm bi élection yi desee une semaine dama gis may doxantu man ci Albert Sarraut te bi may doxantu man rekk maa doon doxantu ma ñëw ba passé fii casino nekk ma yem ci suñu way jur boobu ñuy wax Moustapha Lo xaw ma ndax xam ngeen ko wala déet am na ñu ko fi xam waaye xale yi judd bu mujj bi am na ñu ko xamul ma gis ko mu ngi taxaw sol ñetti abdu yu weex comme genre ni sama mbokk yi di solo mais li ma jaaxal ñëw naa fekk ko fi mu taxaw ma jox ko loxo mais eh, kii du Moustapha ma ne ko ma ne kay mu ma tey daal kontaan na ndax dama la gëj a gis nuyu ma akolaat ma mais bi ma accoladé ma gis ni mbubb bi mu sol poche biy nekk fii dafa mel ni fer biñ ko doon paase dafa lakk wëñ bi ba poche bi teppeeku ma nuyu ak moom noonu rekk mu ni ma tey daal kontaan naa ma daal koy weesu mel ni lu jëm ci place de l'indépendance mais bi may ñëwee ma fekk Dakar yëpp nekk ay ruines dàll yi ne woon pavé yi ne woon ci suuf sax dañ ko dàllati yëpp ñu jóg ko ay jóg jóg jóg jóg ma ne ah waa lii lu mu firi ñu ni ma wax la fii ngeen jëm taxawaay dëgg la laaj ndax sabotage bu ñu mën a def ba yàq seen liggéey dinañ ko def looloo tax bi ñu jaxasee résultat yi xam nga man dafa am lu may neex xam nga séq ak nit mu toog fa mu toog yow it nga toog fi nga toog mu wër la ni yabu la xawma ñun ñi ku ñuy yabati waaye du Macky Sall waaw preuve bi mooy bërki démb bi muy ñëw ni day seetsi fii seen xalifa bi ñemewul jaar fii sama buntu kër ndax ni dafa ragal bu fi jaaree ñu yuuxoo ko ma ni ko man kenn yarewuma loolu je ne suis pas indiscipliné waaw ah. bu fi jaaroo nit moo xam ah. waaye ngeen xam ni seen responsabilité fi ngeen jëm li ci aju bare na ay assemblée nationale moo ci gën a tuuti waaw mais nag ci mbaaxu yàlla fii ak deux mille vingt quatre laxasu leen rek ñu laxasu waaw lu ngeen foogul rekk def nañ ma ko jóg naa fii di dem voyage marok ministre de l'intérieur mais de l'intérieur laay mën a wax mais ministre de l'inférieur damay wax ni ñett fi ne fii ci réew mi waaw Maguy Sall ministre de l'inférieur waaw ak conseil waaw de la démagogie waaw ah. ma xam ni ñett yi nag réew mu ñu séq ku bëgg a defar réew ma bay boo nga taxawaat waaw ñu téléphoné ministre de l'intérieur bi nekk Maroc pour ñaan ko bu ma ñëwee foofu ci aéroport bi ñu arrêté ma foofu ma ñëw ñu ubbi sama passeport ni ma passeport bi validul te passeport bi tampon aéroport bu Paris mu ngi ci passeport bi ma xam ni bu validul woon xanaa ñoom bala ñu koy gis xanaa waa Paris gis ko ba noppi te seen cachet mu ngi ci ñu yendul ma ca aéroport ba toute la journée di dugg ak a génn ministre ba mujj ñëw ñuy dugg ak a génn yu kenn xamul benn comédie boo xam ni ma jékki-jékki ñu ne ah, comme léegi passeport bi validul dañ lay jël delloo la sa réew noonu ci policier yi ne woon ci aéroport bi am ci kenn ku xool ba mu wóor ko ni ñi muy ragal kenn nekku fa mu def ma nii ma ñëw mu ni ma ça de chez vous maanaam lii xew te seen réew la jóge ñun nekk ci biir brigade bi am na ñu ci d'accord ndax deux bu jëkk bi mooy ñoom du am seen problème ci seen réew di ko régler si fii bu ñaareel bi mooy marocain yi nekk foofu di fa liggéey kii nii buñ ko fi arrêté fii ñooñu ñëpp seen bakkan a ngi ci xottu gerte moo tax ñu ne leen ñun duñu ci d'accord pour ñu di ko arrêté bu dee dangeen dem nag ba sës xamuleen lu ngeen di def dugal leen ko ci avion bàyyi ko mu dellu ci réew moom mooy xam lu muy wax ak ñoom ci passeport am ngeen note boobu ñu jóge ca ñu baax ñu tedd ñi seen mag war a jóge Algérie pour ñëw Sénégal mu wax ni dafa yittewoo daje ak al mustarshidin wal mustarshidaat bu sañoon ñu ñëw recevoir ko foofa ca al irshad ñu préparé visite ba invité ñi ñuy invité ñëpp fekk mu ni orchestre dayre bi façon bi muy defee musique def ko neex bu sañoon bu bu ñëwee ñu indil ko orchestre bi ñu defal ko ay morso te ñu enregistreel ko ko pour mu yóbbaale ko ñu préparé yépp defar ba ñu ni dimanche la war ñëw ñu xëy xëy rek moom it mu daal di téléphoné moom shérif bi daat ni ah ngeen bal ma àq de mën a ñëw ndax sunu ambassadeur daf ma wax ni ma le gouvernement algérien ñoo ko woo téléphone ni ko shérif bi warul dem foofu maanaam warul seet si Moustarchidine te kon nga xam yëf yi fan la jóge ñu téléphoné ma wax ma ko ma ne amul problème moom moo ñaanoon pour seet si ñu pare woon nañu pour teral ko mais comme noonu la deme yëpp at problème ñu daal di arrêté yëpp cadeau yi ñu jëndoon yépp pour moom ma ni ñoom oustaz Cheikh denc leen ko ba gàmm bu gàmm jotee dina am ci ay bokkam yu ñëw ngeen jox leen ko ñu yóbbaale ko donc boobu di beneen ngeen war ko noté ma toog am sama benn nit bu nekk ci service secret yi ni ma jamono yii ma ne ko am ah, mu ne ma bul dem Mauritanie ma ne ko lu tax mu ni ma gouvernement bi fii dafa am complot bu ñu comploté te mooy am na ay colloque yu ñuy def ca Nouakchott dinañ la invité ca colloque ya mais bul dem parce que li ñu bëgg mooy buñ la invité ba nga dem ca colloque ba am na ñu ñuy demander pour ñu enlever la te bu ñu la enlever fii ak mille vingt quatre du ñu xam fuñ la dugal. waaw ma lay laaj ana lu xew ñoo am conférence Gambie préparer sunu conférence yóbbu sunuy matériel ba mu des quarante huit ñu jékki-jékki ni Adama Barrow def na discours nee na interdire na bépp événement bu war a am fii yépp te fekk boobu dafa ñëw Dakar ba jóge fii fa lañ ko joxe instruction yi ba sunu matériel ak yëpp dañu mujj defaat ko ci ay remorque pour ñu delloo si ko Dakar bu ko defee yooyu nag yu yu bare yooyule ba fan yële passé suma mbokk mële woo ma téléphone ni ma Mahmoud Saleh nee na def la soxla ma ni mbokk mi boo gisee Mahmoud Saleh nga wax ko ni ko maa ngi koy jaale colonel Malick Cissé bi mu daan àndal di ñëw fii te bi mu faatoo ba léegi jàllewuma ko loolu waxin la ndax ku toll noonu ci yow mu daan ànd ak moom mu faatu te talul sax jaale la ko ba noppi ni def la ñàkk fay daa ngi ci di ko di ko tontu waaw dama xam naa affaire ba demee yépp ma defe ni nag yooyu yépp bu ñu ko seete capitaine mi am na ci wàllam dafa ñëw keroog sax ak nervosité bu nga xam ni dañu mujj di ree sax mu ne ma man nit ñi yëg naa ne ndeke dof dëgg lañu ma ne ko ah lan la mu ne ma ndax li ñuy cherché mooy ñu jël ma man dóor la dóor ma ci sa kaw sa njabootu bopp waaw yooyu yëpp buñ ko boolee yëpp te bokkul ak yu sew sawaan yi sew sawaan mooy joxe ay ordre à ce que ñun quartier yi ñu dëkk yëpp ñu di ko couper toul temps di ko couper tout temps ci façon bu nga xam ni appareil yi nga yor yëpp mën a yàqu démb laa ci mujje yàqule benn appareil fii nii ci Tiwaawoon lu bokkul ak Dakar ma defe ni nag yooyu yëpp bu amee te am ay nit yuy defe ni ci seen xalaat mooy waaye juboo juboo lëg président ma ne ban président ban dafa tolloog ci wàllu diplomatie am na nu ngeen gisee yëf yi te sëñ Cheikh dafa am baat bu mu wax man noonu laa déggee seen action suñu Cheikh nee na nit bu la tooñee te foo ko gis dawal mbéj nee na bu fayu jotee du neex bàyyi ko ba fayu jot rek mais bul def foo ko gis dawal mbéj jaru ko waaw bés ngi ñëw incha allah yi ñu naqari woon yëpp suñu gannaaw la féete incha allah waaw bu ko defee kon nag ah mu ngi guddi sax di xam na pann yi ñu am moo ñu xaw a tardeel tuuti xam naa comme suba ci bëccëg bi am na waxtaan xëy na bu suba ñu seet liñ ci mën a yeggale ñu yeggale ko ndax mu ngi guddi te nit ñi dañuy soxla récupérer pour suba ñu mën a ñëwaat yeggale seen waxtaan waaye ma di leen yéegal rekk ni seen teewaay fii lu rëy ci jaboot ji la parce que dañoo bokk lépp ànd di xeex li ñuy xeex xëy na am na ñu naan waaw sëñ Moustapha de moom kenn gisu ko walla kenn déggu ko li ngeen am yépp maa ko def wala boog la ci ëpp maa ko def te ku ma indil kaamil ma waat ko waaw dafa tolloog rek nag ku tàmm sàcc moom ñun loolu xam nañ ko bu yàgg te Serigne Cheikh ak Senghor la woon Serigne Cheikh gagné élection yi ñoom Senghor sàcc résultat yi donc loolu du ñu bett jamono yi ñuy ànd ak Ablaye Wade am na élection yu am ñu ñu gagné ko ñu sàcc résultat yi te keroog góor gi woo ma woo Ablaye Wade ñu ñëw mu ni dem leen ngeen former seen gouvernement wu bopp waaye ma gis ni ñiñ ko séqaloon mel na ni dañu ñemewul yi affaire bi te mooy forme seen gouvernement wu bopp bañ ca jógee ñu waxtaan ci maag moom ma defe kon nag baatu wi Askan Wi gisuma ci jamono bi lu ko gën a jaadu ak lu ko gën a am solo parce que lépp lu ñu mën a def te ànduñu ko ak askan wi presque dootu ko jar waaw bu ko defee kon nag ngeen jàpp ci li ngeen nekk rek ñun xëy na ñu ngi ci daara yi waaye li ñu war a jàpp ñu nga ca dégg na Sonko bi mu wax ca wax yu am solo ca Casamance ma di ko yëgal nag ni y une délégation bu jóge Casamance ñëw nañu ci gàmmu gi lu mat cent vingt personnes waaw waaw wa tabaarakallahu jàmbaar dëgg lañu waaw xalifa boo gisee kon Barthélemy du question sax contribution bi mais dañu bokk lépp donc ñu accompagner ko farata la incha allah li ci des nag mooy njaboot yi kenn ku ci nekk taxawaay boo amoon dangay yokk taxawaay ba ndax am na loo xam ni jeexamul waaye nag sa ci yowm bés nga ci ëllëg yàlla dina def li ñu bëgg incha allah waaw ñu sant leen yéen ñëpp sant gan yi fi ñëw yépp koo foogul rekk contribuer na ci gàmmu gi ku ne façon ba mu mënee defee na ko waaw nitu diine ak nitu politique ak ñépp waaw xëy na suba fekk mu gën yaatu comité d'organisation bi noté nañu yooyu yépp danañ ko wax nit ñi dégg ko dafa am sunu benn jigéen rekk di doom ci colonel Malick Cissé yóbbante Cheikh bi mu indi fi lu ne wax ni dafay dundal wëllëre gi baayam amoon ak yéen ma xam ni loolu it rafet gi ëpp na kon nag ñu tudd ko mu dégg ko yóbbante ko it mu jotal ko ko incha allah ah soxna Moritani mu ngi ànd ak yaayam <laughs> yaayam jooy na li bi yépp <laughs> fa tabarakallahu ak délégation bi ñu àndal yépp ñu jóge Mauritanie ñu di leen nuyu di leen gërëm di leen sant ci taxawaay bi fa tabarakallahu ñu ngay dundal daayira bi ci façon ba ñu ko mënee fan yi passé moom soxna mii mu ngi yóbbante Alpha Diop mu ñëw wax ma ni ma soxna nee na nga waxal ko ñoom maam Cheikh ak maam Babacar ak ñoom soxna Fatima nga wax leen ni leen moom du seen yaay seen taalibe la waaw ba tax na kon nag yóbbante bàngoo Alfa Jóob la ko wax mu ñëw wax ma ko booba gàmmu gaa ngi ñëw mu ne kon nag nettali ci kanamu boroom la amee solo yaay mu ngi ni toog ànd ak ay ganam ñuy jóge Suisse ñuy jóge Dakar wa tabaarakallahu ñëwoon gàmmu ci daaw baran ñu ñëw àndaateeg moom ñëw gàmmu si ñu di leen nuyu di leen sant ci teewaay bi waaye di sant itam magam bi jóge Italie wa tabarakallahu ñëw bokk ak ñun gàmmu gi yàgg na koo bëgg waaye yàlla nga koy soog a dogal ñu di ko nuyu te di ko sargal bu baax a baax sunu yaayu bopp di goro ci capitaine wa tabaarakallaahu di yaayu ajaa aja rek aja dama koy tooñ bis bu ne ma ne ko tey séeréer nga wala tukkuleer nga waaw ma boy ba nga ma ci tukkuleer yi rek waaw wa tabaarakallaahu ah, ñoom it ñu di ko encouragé di ko taxaw mook frère yi mu am yépp ñoom Cheikh ak ñoom Mohammed mu mel ni nag boroom yëf yi soxna Fatima ñoom boroom femme dévouée pour la cause ah xam naa ni daal ñemewu wax ca kaw waaye minute bu ne ñu yónnee ma message Moustapha nuyu na la ma ne waaw kay bi lay kay ma ne maa ngi mel ni man tuddatuma Moustapha <laughs> ndeysaan wa tabarakallahu am na solo moom itam ah way juram bu jigéen ñëw ay bokkam itam ñëw pour wéttali leen wa ñu di leen nuyu ñoom ñëpp te di leen ma masawu coono ah seen mag soxna mu xayri mu ngi yóbbante démb rek di ko wax Cheikh Tidiane bi ñu ko waxal góor gi ni ko àdduna bii amuñu fi ku ko ëpp te ku ñu mën a am te mënu ko mënuñu sopp ko duñu mën a soreek yow waaw man dafa ni nag yooyu yëpp buñ ko boolee sang yëpp di yóbbante ah dafay rafet rek ñu tudd ko ba ëllëg ñu soog a nag dugg ci li des yëpp waaye di yóbbante rek sunu mbokkum mbokk sëriñ Mbàkke Abdul Wadud Mouhamad Mbàkke Abdul Wadud mu jotali xalif général de Mourides sunu nuyoo ak sunu cant moom woy jur la ci ñun te tabaarakallahu am nañu considération ci moom ndax moom it dafa am fu mu ñu teg looloo tax ñu nit ñu am fu ñu ko teg di ko sant te di ko ñaanal moom it wér ndax jamono bi ñëpp wéruñu tabaarakallahu waaye yàlla du fi jóg incha allah yeneen kilifa yi ci réew mi yëpp am naa sama mbokk Mouhamadil Mokhtar Mouhamad Lamine tabarakallahu naa sax seen gàmmu Njaasaan mu ngi ñëw naa dinañ ci waxtaan pour seet yeneen taxawaay yu ci ware incha allah ñu gërëm sant borom taxawaay yépp ku jege ku sore ku ne loo foog ni war nga ko mën a contribuer rek contribuer nga ko am na ci ñoo xam ne liñ ñu yónnee ci ay oto ni pour bu ngeen soxlaa lu transporter gan ñi seen oto yañ doon jaay yépp yónnee nañ ko fii ñii seen boutique ya ñu yor yëpp luy xeetu denrée bu ñu war a soxla ci gàmm yónnee nañ ko fi tabaarakallah ñi nga xam ni wàllu ay appareil la ñuy jaay ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yónnee na laaj lan la ñu soxla bu ñoom ñu jox ñu li ñu soxla fa tabaarakallah kenn desul ñu yore wàllu ndox yi waaye itam ñu sa sant sunu ak su waa Europe seen taxawaay fa tabaarakallaahu rafet na lool ndax toilette mobile yu bees yi nga fi yi ngeen fi gis yëpp ñoom ci niveau Espagne ñoom ñoo ko jënd commandé ko depuis Chine transporté ko indi ko fii daa yëg ni course bi ni mu demee nit ñi dañuy soxla toilette ñu jënd ci yu bari yónnee ñu ko wa tabarakallah te loolu n'a rien à ak seeni participation ki yee ca des yëpp kon ñu sant leen ci seen turu njiit tabarakallahu mu di Ousmane Gueye nit ku amul moroom te am taxawaay wa tabarakallahu ah ñu yore ak su Afrique ña nekk Canada ñu nekk Brésil waaw ñëpp kenn ku ci nekk ñu nekk États-Unis waaw ku ci ne façon ba mu mën a defe pour ñu xam ne yëf yi ci la bokk defee na ko noonu waaw waaw kon nag ñu nuyu leen ñoom ñépp sant leen ñaanal leen yàlla yal na yàlla gën leen kàttanal te yàlla mottali seen yéene te yàlla defal leen sutura te yàlla defal leen tawfiq waaw ah. loolu lañu waxoon rek ni nañ ko avancé ndax heure baa ngi dem te am na ci ñoo xam ni dañu bëgg dellu ba dakaar te ku ne xam na ni yoon wi dafa xat dëgg yàlla bu ñu sañoon metri leen ci condition yu nga xam ni bu ngeen bëggee toog une semaine sax toog une semaine waaye incha allah nañ ñu ñaanal yàlla rek danañ deme ba def fi ay genre hôtel yu nga xam ni bu soobee yàlla bu gàmmu amatee kenn dootul am problème mu dal waaw dinañ la mettre dans de meilleures condition incha allah waaw bu ko defee rek léeg-léeg ma tooñ yaay <laughs> léeg-léeg mu ñëw ah waaw yaay lan la sama fiyey metti ma di ko ah yaa neex nag parce que di woo àdduna gu toll nii ba noppi te dafa ne da ngeen di am <laughs> noflaay noflaay jeex na ñun ñëpp kenn dootul noppalooti waaw waaye mu ni ma waaye plaisir bi ngay am ci servir nit ñi mu ni ma mooy tax dootoo yëg sax coono bi waaw wa tabarakallahu bu ko defee kon nag Cheikh Mbengue bi mook Moussa Gueye ak ñoom Cheikh Tidiane ñan sama mbokk ma ca Togo Alioune Dia ma ngay bëgg a rey boppam ndax daf ma ni woon dañ ma yebal mission ca New York ma ñaan yàlla bu may jeexal samedi lay jeexal boo defee ma jël vol foofu rek daal di ñëw Dakar pour fekkee si gàmmu gi waaye bërki dem mu ni ma ah sama xol dafa neexul ma ah, lu xew mu ni ma sama mission bi di dañ ko prolongé ba fi mu ne dootuma jeexal ci samedi bi ndax semaine ba ca topp damay liggéey moo tax du ma mën a fekkee gàmmu gi yaaxal nañ ma sama teraanga rek waaw ndeysaan wax na lu ne ma Maliou Dia waaye tabaarakallahu à l'heure actuelle wóor na ma ma ngay suivre gàmmu gi te loolu rek moo ci am solo kon nag ñu ngi sant ñëpp walaay ndeysaan jotul ñëw ndeysaan walaay ndeysaan sunu mbokk Abdul Wahab Sakho ñoom la ma Cheikh Mbengue di wax moo tax cet baaxul waaw xale bu baax boo xam ne am yitte am taxawaay tabaarakallaahu am ci man benn attachement bu nga xam ni am ko ci ñi ma am ñëpp waaye gis nga rekk lu kenn xamul accident bu kenn xamul amul amul tur ñëw rekk tombe ci kawam ba yàlla def na mënul woon ñëw ci gàmmu gi waaye ñu ñaanal ko yàlla ndax boobu rekk moo am solo fa tabaarakallah waaw mbokk yi fi jote jóge yëpp ñu ngi koy jàlle seeni bokk te di leen ñaanal yàlla yàlla yokk yërmandeem yokk njëggalam yokk seen leer ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki ñu ci mujj tàgge barki démb la muy xalifa Gassama bi nekk ni euh, états te dara jotu ko ndeysaan mu nga téléphoné jabar ji ak doom ji ni ko pare leen maa ngi ñëw damay gàmmu ji kursu ba loolu la mujj a wax ak ñoom ci téléphone ñoom ñu toog rekk ñu téléphoné leen ni leen faatu na ci lu kenn xamul nu mu demee waaw waaye nag yàlla moom yàllaay jël waaw ñu ñaanal ko yàlla ñaanal ñi ci des ñépp oustaz Chidaat fa tabarakallahu ci benn waxtaanam te bim koy waxkat ak bi muy wujj boroomam sorewul mu ni ngeen bàyyi xel ni ñun ñëpp ci liberté provisoire la nekk ku nekk ci liberté provisoire nag te say mbir loxo ya mu ne nekkuñu fii fële la nekk kon nag ba boo di wàcc sa bopp rekk dañuy ñaan yàlla yàlla defal la njéggal bi mu ko waxee ak bi muy wuy ji boroomam presque yàggul ndeysaan waaw keroog bi muy ñëw di ma seet si dama wax Cheikh Sarr bi ni ko oustaz Chidat mi def mën nuru kuy tàggoo si ndax Ousmane moo ma woo téléphone depuis Suisse ni ma Oustaz Sidat dafa feebar ah bu ma sañoon nga recevoir ko ma ni ko incha allah ma di wax Cheikh ni ko kon nag wax leen ko mu ñëw fi bés sàngam ci heure sàngam ñoom Cheikh dem jëli ko indil ma ko waaye boo xoolee kanam gi rek dangay xam ni du oustaz Sidaat ma nga xamoon kanamu koy tàggoo rek la yor isaan muy xool benn place rek ni ma ñetti baat rek moo ma indi ma ni ko yan mu ni ma bu jëkk bi mooy ma ñëw beesal sama pas-pas ma ni ko waaw mu ne ma bu ñaareel bi ma ni ko waaw mu ni ma ma beesal sama cofeel ma ne ko waaw mu ni ma bu ñetteel bi nag mooy sama yaram neexul bu mu mënee am ñaan rek ma am ñaan waaye pare nañu sunu lépp waaw ndeysaan mi ñu waxtaanee maag moom ba noppi ba ma ni ñoom Cheikh yóbbu leen ko ngeen dugal ko ci oto bi ba muy dem bay tolloog bunt bi cheikh mii dafa jaaxle sax mu dégg ma ma ne fa alima ma fi qulubihim cheikh xaw a tiit sax ba ba gerso ni ma man bi nga waxee loolu rekk laa xam ne say dafay dem waaw ba tax kon nag ñoom ñëpp ñu boole leen jaale leen waaye ñaanal leen yàlla fa ñu jëm dàqal leen fii ñuy jóge te yàlla yéegale leen ci bërsaxu mag ñi te yàlla xaru leen waa waaw ñoog yi jullit yépp te jiitu ci suuf incha allah loolu la amoon ci ay kàddu rekk wax naa leen sànq ni leen ñëwuma pour waaraate si ñëwuma pour waxtaan si dama ñëw rekk pour barkeelu ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàllu discours bi sax waxuñu ko dañ ko doon barkeeloo rek waaw bu ko defee kon nag ñu jox capitaine mu joxe ñaan tabarakallahu Pape Cheikh Sarr nga jël nga jox ko

asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci ndigalu boroom xol yi ñu jàng fatiha juróom-ñetti Quraysh falaxe ak na salaatul fatih ku nekk ka sa xol tànn nga yéene ko kon nag ñu jàng yan wi te yeewee ko ba ëllëg incha allah bismillah dafa am lu ñuy rectifier tuuti rek ndax dafa am nu ñu waxtaane woon ak man ba ma jàpp ni gan ñi algerie la ñuy jóge fekk dafa am njuumte ñoom jóge wu ñu Algérie Maroc la ñu jóge surtout Fès lañuy ñu jóge wa tabarakallahu faf fa tabarakallahu am yëpp fa nekk kon nag Chérif Zoubeir fa bu fekkee ni yéeneem moo tax mu ñaan leen ñu ñëw fii ndax bu sañoon jël ñépp indi leen kon nag bu subaa incha allah dinañ leen may occasion ñu jël kàddu wax li seen yéene ci xew-xew bi waxit yóbbante yi nga xam ni moo jóge foofu ca Maroc incha allah waaye moo am rekk benn mbokk bu ma bëgg tudd cantam ndax mënoon nañu xaar ba suba sax bu ñuy tudd cant yi wax ko waaye itam dafay rafet ma waxal ko sama bopp muy kenn bëggul bu Serigne Moustapha waaw ah tabaarakallaahu bi gàmmu gi di ñëw indi na fi fanweeri nag te ku na xam na ne loolu tuutiwul boole ko juróomi gëléem fa tabaarakallaahu denre yi dara desul diggante oignon pomme de terre ay huile lu ne jënd na ko indi na ko fa tabaarakallaahu booleeg enveloppe yi mu ko booleel ba noppi ni xeeb naa ko ma defe ni kon nag dana rafet pour ñu tudd ko ba nit ñi xam ni boobu coono daj na ko ci gàmmu gi ñu di ko gërëm di ko sant surtout ci turu waa waañ wi na waa waañ wi ku leen indil loolu yaakaar naa fa tabarakallah di nga leen gën a jàppale bu baax a baax kon nag kenn boogul yóbbante baa ngoog fa tabarakallah comme capitaine joxe na ñaan bi ñu ñaan ba noppi ah ñu yeewi nit ñi ba suba ci onze heures ñu daje fii xëy na joxe délégation yi ku ne joxe ay kàddoom rekk ñun ñu clôturer yeewi nit ñi incha allah ndax xam naa ni bu ñu continuer woon ba suba it nit ñi toog ndax duñ ko bañ waaye itam foog ngay yërëm moo tax may bëgg di gaaw gàttal waxtaan bi pour may nit ñi ñu dem récupérer bu subaa lu ñuy yeggale ñu yeggale ko incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. só brilha.